muy téere boo ama am solo di jàngale an naxwu muy fànn boo xam ne bu ama am solo la ci làkku arab nit ki dégg ko ngir mën a dégg làkku arab waaye ngir mën a jëriñoo alquraan sunna eh, tey ñu toll ci baabul mubtada i wal xabar bunt bi nga xam ne dañ ci jàngale lii di al mubtada u wal xabar al mubtada wal xabar buñ ne al mubtada borom téere bi nee na huwa al ismul marfuu al aari an al awaamili lafziya mooy tur wi nga xam ne day dañ koy rafaa ba noppi dafay rafle ci benn aamil boo xam ne aamilu baat lay doon dafay rafle ci benn aamil boo xam ne aamilu kaddu lay doon maanaam baat lay doon loolu dana leer ci karam mu wal khabaru huwa al ismul marfuu al musnadu ilayhi mooy tur wo xamne dañ koy rafa waye dañ koy wéer ci mubtada am yi moog mubtada mi ñoy and mo jox la misal mu la nga wax ne zaidun qaimun Zaidun qaimun zaidun. mubtada la qaimun xabar la zaydun qaayimun mubtada xabar a ngi noonu wa zaydaani qaayimaani ñaari zaydi yi dañoo taxaw ba tey loolu mubtada xabar la wa zayduuna qaayimuuna zaydu yi dañoo taxaw lool ba tey mubtada xabar la ak zaydu zaydu ci boppam mooy mubtada qaayim nekk xabar زيدان باتي مبتدا لا قائمان نك خبر زيدون نك مبتدا قائمون نك خبر منالا واخنا لا نالا تتكون الجمله الاسميه من ركنين اسانين هما المبتدا اساسين هما المبتدا والخبر مانام الجمله الاسميه دا فاي كومبوسي و سي نياري بونكو يو خامني ييب اي توسان لا سي موي بن منو جا نياك ñaari ponk yooyu mooy al mubtada u wal xabar al jumlatul ismiya dafay composé wu ci ñaari fondement yoo xam ne mubtada xabar lay doon wal mubtada wa al ismu yàq yaqamu fi badi il jumla mubtada mooy tur bi nga xam ne mooy ñëw ci njëlbeenu jumla ji ci li ëpp nag mën na cee boole ëpp ndax léeg-léeg kat mënees naa yeexi mubtada ngir lu ko way lu ko lu ko lu ko waral waaye daal liy cosaan ما هو الاسم الذي يقع في بدء الجملة والخبر هو الذي يخبر به عن المبتدأ ما ليغا خامنا سي لا ني خبار تا لن تامبالي وون ويتم به معنى الجملة سي لا ني موتلي معنى الجملة جي مبتدا موي لي ني تامبالي جملة خبر موكاي موتلي خبرت موي جوخي معنامي kon boo seetloo boroom téere bi bi muy tàmbalee nee na la euh, al mubtada'u huwa al ismul marfuu al aari an al awaamili lafziya mubtada mooy tur wi nga xam ne dañ koy rafaa ba noppi dafay rafle ci al awaamil al lafziya bi mu ne al ismu kon da nga ciy génne ne da nga ciy gise ne kon euh, euh, mubtada du nekk fi'al du nekk xaraf waaye tur lay doon mubtada du nekk fial du nekk araf jumla saa bu tàmbalee ci fial dootuñu ko tuddee jumlatul ismiya waaye jumlatul fialiya lay doon ndaxa noonu it du nekk araf kon daal bi mu nee huwa al ismu da daal di dégg ne kon tur rek lay doon kon fial ak araf benn si ñoom du nekk mubtada bi mu waxee ne al dañ ciy dégg ne kon mubtada moom kenn du ko nasab kenn du ko jar jëlale naa nag ñu koy jasam moom ndax gannaaw mënta nekk fi'il moom jasam du laal lism kon génnee na lu ñuy nasab wala lu ñuy jar wala lu ñuy jasam fa kullun minhuma la yakunu mubtadaan maanaam lépp lu ñuy nasab wala ñu koy jar wala ñu koy jasam du nekk mubtada bam ne al aari an al awaamil lafziya dafa rafle ci awaamil lafziya booba la génnee woon kon faayil ndax faayil kat fi'l moo ko tax a nekk faayil génne it naibu faayil génne ismu kaana wa axawaatiha ndax tasbaxu bi amalin nafsiyin wa al fi'l yooyu yëpp génne na leen lan mooy nag al awaamil al lafziya xam ngeen ne eh, lu demee nekk fi'l danga naan jaa zaydun jaa nekk fi'lu madin zaydun nekk faayil kon naa gis na jaa aji moom moo rafa faayil ji man man ngaa dégg ne duriba zaydun duriba ba day nekk e, fi'lu maadin mabniyun lil majhul zaydun nekk naa'ibu faayil ismu kaana comme ni ko xame kaana allaahu gafuuran rahiman laahu ji bu nekkee faayil kaana ji ko jiitoo tax wa axawaatiha yooyu mooy al awaamir al lafziya yooyu nag da koy génnee maanaam ba mu ne rek al aari an il awaamil lafziya kon daal dañ ci dégg ne al mubtada buñ ko waxee yooyu yëpp du ci am maanaam du nekk faa'il du nekk naibu faa'il du nekk it ismu kaana wa axawaatiha mu daal lay indil misaal ci al mubtada mu ne la muhammadun rasulullah محمد رسول الله وهو اسم مرفوع خال من العوامل اللفظيه بقول محمد امو الدار اللي راح محمد دي لوماي نيك نيك مبتدا مانام العوامل اللفظيه جيتوكو باتخ ني ني محمد ديكو رفع ديدت خال من العوامل اللفظيه محمد والخبر تعريفه هو المسند الذي تتم به مع المبتدا فائده xabaar tamit mooy li nga xam ne dañ koy wéer ci mubtada mi ngir mu man koo indil njariñ borom alfiya dafa waxoon ne wala xabarul jusul mutimmul faida kallaahu barrun wala ayadi shahida mhm. kon xabar moom mooy tax ñu mën a xam lan lañ jublu ci mubtada mi maanaam lan lañ ci bëgg a wax mooy indi njariñ li daal mooy tax mu nekk jumla mufiida mu daal misaal ba dèjà dina ne mel ne rasulullahi ci muhammadun rasulullah kon da nga gis ne muhammadun rasulu mubtada xabar la muhammadun rasulullah mubtada xabar la muhammad mooy mubtada mi rasulu mooy xabar ji muhammad ndaw la mu daal di nag andi allahi ndawal kan la ndawal yàlla la rasulullahi kon laahi day nekk mu daaf ilayhi muhammad rasulullah léegi nag mu jox la lan mooy seen atte maanaam nag naka la ñuy jëflante ak ñoom ci wàllu ni arab bi naka lañ leen di maase mu ne la wa xukmul mubtada'i wal xabar ar rafu bi damm aw ma naaba anha nee na la atteb mubtada xabar mooy dañ koy rafaa ci dàmm wala boog la nga xam ne moo fay wutu dàmm waxoon nañ ne nag yey wutu dàmm ci bu nekkee al asmaul xamsa wala bu nekkee al musanna walla wala lu ci ne waxoon nañ da ko la fay wutu damm su fekkente ne damm ma fare nekk te nekku fa la ko fay wutu ci xeeti eh, xaraf mu ne ne li anna rafaa imma an yakuna bi dammati ndax rafaakat léeg-léeg mu nekk damm mel ne fi borom bi di waxee ne allahu rabbuna fa qawluhu allahu marfuuxun bi damm rabbuna marfuuxun bi damm ba tey allahu mubtadaun wa xabarun wa alaamatu rafihima a dammatu zahira maanaam allahu rabbuna mubtada xabar la seen mandargam rafaa nag mooy dàmm gi nga xam ne mi ngi noonu feeñ allahu dàmm gi feeñ na rabbu dàmm gi feeñ na kon loolu mooy seen mandargam rafaa mu ne wa imma an yakuna araf bil alifi léeg-léeg nag rafaa gi dafay nekk ci alif naxwu qawlihi taala yadaahu mabsuutataani yadaahu mabsuutataani ñaari loxoy sunu borom yi dañ koo tàllal yadaahu ci boppam mubtada la alif gi nga xam ne moo xëcc deel gi moom mooy nekk li ko rafaa mabsuutataani nekk xabar alif gi xëcc taa gi moom mooy li nga xam ne moo ko rafaa kon foofu dañ ko rafaaxee ci alif moo tax ma ne la fa qawluhu yadaahu mabsuutataani مبتدا وخبر وعلامة رفعهما الالف نيابه عن الضمه لانهما مصنع نخدا نيو نيك نيار واما ان يكون بالواو لا لا نيك واو نحو قوله تعالى السابقون الاولون السابقون مبتدا الاولون خبر من فقوله السابقون الاولون مبتدا وخبر نيوم نيار بولين بولين مبتدا خبر لا marfuaani wa alaamat rafihima alwaawu dañ leen rafaa ñoom ñaar ñëpp màndargam rafaa gi nag mooy waaw gi assaabiquuna waaw gi moo ko rafaa al awaluuna waaw gi moo ko rafaa niyaabatan ani dammati ñu remplacé ko damm ga fa waroon nekk li annahuma jamxu muzakkar saalim ndax dañoo nekk jamxu muzakkari saalim kon loolu mooy suñu bindu tey ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal yombal defal ñu ak jàppandal ba ñu mën a dégg téere bi dégg yeneen i téere yu bari yu ci topp ba dégg fànn gi nga xam ne moom lañuy ñuy jàng te mooy naxwu dégg làkku arab mën a dégg alquran sunna ndax kat lépp lu ñuy jàng ci làkku arab moo xam naxwu la moo xam luxa moo xam badia la ak bayaan ak lu mën a doon lépp rek jumtukaay la jaarowaay la ngir mën a dégg alquran ak sunna kon yàlla na suñu borom yombalal ba ñu mën a dégg alquran ak sunna hada wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain